tabarkalla bu jamono melee nii ñépp dañu war a dellu cosaan te cosaan li mooy yàlla yàlla itam yonent bi la fi am waaw dafa fekk nag yàlla dafa am lu mu séq ak ñun ak lu mu séqul ak ñun wàllu yàllaam séqu ko kenn boppam rek la ko séqal wàllu ngóoram nag la séq ak ñun ci la bindi bindeef yi ci la organisé li mu organisé mais wàllu yàllaam séqu ko kenn du malaaka du yonent du keneen ken amul dara ñëwul sa googu walu nguur gi nak le sekk ñépp di ci doxal ñetti yef di ci doxal nam di ci doxal ciobare di ci doxal xereñam surtout di ci doxal xereñam te ku ko nangul ñam mu ak yow ku ko nangulul ñam mu ak yow waaw rek la tol wa ah. lolu moo tax ñam di xaw doy war ndax nam kooku beneen affaire la ci biir nguur gi wante xereñam moom lañ ñépp war a bàyyi xel waaw ndax koo xam ne lu ko neex def ci xereñam mën nga ni jubul te ca moom jub na parce que moom moom lépp ku moom lépp lu la neex def waxuma la koo xam ne loo def jub na loolu mooy li ci nekk mu mel ni kon mag ñëpp dañu daje ci lenn mooy naal naal bu jëkk bi mooy nit yàlla nit la jëkk am ci projet waaye mun lu mujj bind moom la jëkk am ci naal waaye bind na ñépp ba ñu sotti mu sog a bind nit ngir bëgg wone xereñam ci nit te bu amul seede du ko jara kon na bind ñépp ba noppi bind nit mi mu bëgg ñu nangul ko xereñam ci moom lu dul loolu aduna tukki dafa mel ni itam adduna kenn mënu ko soppi kenn mënu ko waaw kenn mënul soppi adduna yàlla ak yonent bi ku ci nekk ak sunna mm-hmm. sunna yonent bi mooy firi farata mooy rataxal jikko waaw su ko defee penc baax kër baax sunna yàlla nag mooy li nga xëy miin ko ca penku mu jël ko sànni ca soow li nga miin ca sow mu jël ko sànni ca penku yoonam nekku ci waaw moo tax su ne yàlla rek ko mat a ragal moom rek moo mat a ragal gis ku tëdd guddi di wax ni bi man di wax ni di mana ma nekk daal ki ma ci umamun ma xaw buma bu sama pelas nanggam nanggam, baik fekk na ka xam yàlla li muy xalaat ca waxtu woowa mooy bu bul taal géej yi dana fuur ngelaw yi dana daaneel garab yi kër yi toj ku génn dugg ci wax loolu mooy sunna yàlla te kenn du ko soppi moo tax xalaat yi bokkul yi bokkul mu mel ni itam ay jarbaat léeg ñu bind ay not am na ci kenn ku wax nit dégg na ma wax ca kër Alaaji Njaase negosiasi negosiasi la ak sunu borom te moom nee na dafa jàng ñu wax ne kuy ñaan na ragal kon naka lay mën nekke ndax foofu la toll wax ndax foofu la toll waaw ndax ñaan ñetti martaba la am martaba bu jëkk bi mooy boobu ku ñaareel bi nag mooy négociation kilifa bu yilif jamono sañ na négocier yàlla am am na am na bu gën garaaw boobu mooy poñe yàlla Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu ba mu defee fala budda min shakwa ila allahi kurbati ñu ne ko sa way bi la mu ni dama poñe yàlla waaw yàlla nangu na ko nangu na ku ko poñe waaye ci charte mu xaritoog mu xaritoog yow mu mel ni ko nag li am solo ba am solo mooy dafa am lu inquiété nitu yàlla yi mooy wóor gi mu leen wóor ni موم يننتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين يرم جامي متخي الله ينكو من يوم فينو جاخلي mooy lu tax yàlla yónni ko pour yërëm jaam yi muy bëgg a wuy ji boroomam taxaw ca armeel ya di tàggoog ñoom wax ni fitna yaa ngi buuxante di ñëw fitna yoyu di bo xante di ñëw ci aduna bi lañu jëm ci lutax mënu ko freiner parce que ursila rahmatan lil alamin lu jara tay la te jara xalat mu lay xamal ne buñ la nee diw yàlla may na ko nangam bul foog lépp sottee ci loxoom ndax mën nañu contourner yàlla ci machi am mais duñ ko contourner nag ci sunnaam machia yalla nan nangam la bëgg mais bu ko nexé légui dotu ko dotu ko bëgg donc pour ñom ñu contourner machia bi du du du ko du len jafé ah. l'essentiel moy ñu gëm ni wama ma tashauna illa an yasha allah mais bu sunna pour ñoom ñu contourner ko du leen yomb moo tax ci seen waxin fokk ngay tey façon bobu mu ñaané mom yonent وحن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الارض ولا في السماء وبات الضار نبكت اسماء الله الحسنى بوجوجي كي سنة يالله yalla di ko jëfloo foog la yadur ma ismihi shay'un toog xaar c'est très important parce que dar da fay momé l'essentiel moy limuy firi pour ñun bokul ak li muy firi pour yàlla yàlla daram lu muy namm lu muy wax pour lor ca jam amul waye bu xasse ba wàcc sunna bi day tey machia bi pour sunna bi def liñu ko sant ndax yàlla benn xëccu rek moko neex moy bi am ci al mala al a'la bobu nak neex nako te modi asmam yi ak kenn ku ci nek service bi nga yor bu ñu dee nekk di xëccoo xaabidu xaabidu bëgg ni waaye diw daal warul am dara nañ naj affaire mu bañ jot dara te bu ko bëggee def basitu moom it du ci d'accord ni ko jaamu yàlla la comme ñëpp dafa war a am comme ñëpp bu ko defee ñuy xëccoo nag pouvoir boobu kan la ci yàlla bi mujj a jox priorité moo tax yi sunu mbokk yu bari di soow te moo indi coow lu bari li tax ñu naan l'islam lii l'islam la les islamistes fii dëgg applique sharia nangam nangam جسند الشريعة يلا بندو كتي اللوح المحفوظ مك بكو بندون كي اللوح المحفوظ بن فيرجل بوكو بوكو دفي سفر دفي دادي تدو loolu tax mu jël sharia ahkam yi ci nekk yépp man ci nit ñi war appliquer mu bind ko ci alwaaxul maxwi wal isbaat c'est très important moo tax nga gis fii lawxin mahfuud singulier la law mahfuud singulier la mais bu dee alwaax alwaaxul maxwi wal ithbaat jamu la pluriel la waaw kon ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim nuñ koy def ah bi ci des mooy in qulta fi l amri laa أو قلت فيه نعم فخيرة الله منك في لا كذا نعم بوبيت نون كوي داف مودس نك بن سو سو مو ورا تخ نون نيب نيو تاي موي لي غور كي واخون ني امنا ньо خامني بالا ньо نان واو واو غايب جيب نوبي بالا ньо نان ديت déetu gay bu jib nopi legi naka ngay def ñaari yi fi njabot bi mana yonent bi wara xare xaare waawu xay ak ak deedu gayb mu war ko xara ak fan lañu wara dégg fa xiiratullahi min kafila ak kada naami fi yàlla di xare yonent bi mu décidé mu ànd ca dafa complexe بوتي يرجوم في يالله يخاري يوننتي بي اك في يوننتي بي يخاري يالله دغ لي لاج وا بو امول دغ ريك من nga yakanti wa ndax sunu borom ken manul xam affaire te itam kàttanam ak moomeelam kenn xamul fu mu àgg ba tax na kenn xamul fu mu àgg ji bi muy bind bind na ba ñépp noppi kenn ku ci nekk fekk nga sa service noppi te ka ko organiser gisuloo ko fekk moo ko organiser moom bu ne bëgg naa rek loola am waaw bu ko defee bi mu bindee yi muy bind yépp rangale leen ñi mu bind ci leer gu dara raxul ñu di leen tudde almuqarrabin ak bi mu bindee ñi nga xam ni ci leer gu rax la leen bind ñu di leen tudde ruhaniyin ak ñi nga xam ni daf leen bind ci li ñuy tudde énergie énergie boobu mu teg ko ci principe bu ñuy tuddee aljelb mu bindi ñeneen jëli ko ci énergie waaye énergie boobu mu tuddee ko aselb tabarkàlla muy muqarrabin yi ruuxaani yéen yi muy bokki yi nekk ci diggante bi nga xam ni ci wàllu service ñoom lañuy jox service yu am solo ñu du leen tudde nawaamis yi nawaamis yeeg ruuxaanijoon yeeg muqarraboon yi ñëpp tabarkalla mucc nañu mu sog jëm ci bind jinne yi ak shayatin ñépp di njabootam te ku ci nekk bu ñu la bindee dinga fekk sa place noppi sa service ba ngay def fa nga koy defe yépp dana sotti dara du fa manqué te du jaar ci loxo ingénieur du jaar ci loxo architecte du jaar ci loxo kenn ñu ngi jaar ci rekk bëgg naa loola dal di am waaw wante ah am na ñu tudd dialogue sax wante foofa dialogue amu fa solo monologue dialogue il arrive il arrive que Dieu lui-même se fasse violence pour apporter une réponse et une réponse positive aux exigences de sa gloire et cela malgré les quelques réticences de son unicité. D'où l'origine de notre existence. Une existence fondée essentiellement sur le péché. Nous sommes une race de pécheurs. su ko defee moom mooy yar ñépp ñépp ndax amr ak iraada bokkul xam nga malaaka yi xuliqu من عقل بلا شهوه والبهائم خلقن من شهوه بلا عقل والانسان خلق وله منصب من الشهوه ومنصب من العقل gis nga malaaka yàlla jox na ko xel te joxu ko banneex moo tax bu moyul itam du ngóora malaakam xel rek lañ ko jox joxuñu ko shahwa amul passion mais ko amul passion boo moyul mais du sa ngóora béy ma yàlla jox na ko passion te joxu ko xel moo tax bu moyee kenn du ko yedd nit nag yàlla équilibre ko wa jaalnaakum ummatan wasatan mu seddu ci xel seddu ci passion waaye nag wa ma nunaziluhu illa bi qadar waaw mooy tax bu ci nit ñu war ko équilibrer

lu doomu daara daan sonne jaamu yàlla pour bëgga dugg àjjana ne daan naa ko def lu dul bi ma demee ba gis ni jaamu yàlla du dugal nit àjjana coobare moo ko ciy dugal seetal loolu xam nga loolu jox yàlla àqam la nee na lu nit daan jaamu pour bëgg a dem aljanna ci doomu daara daan naa ko def lu dul bi ma dajal coobare ma xam xel ndeke ni jaamu yàlla du yóbbu nit aljanna coobare moo ko ci yóbbu te loolu yomb na dégg parce que yàlla moom noonu la mel noonu moom nguuram nëbbu ko nëbbu ko nëbbu ko mukk bu àdduna amoon téeméeri milliards ci nguurit mu def leen fas ndax lool loolu la bëgg moo ko neex na ñëpp xam ni moo leen man lu ñu bare bari mu écrasé leen ku mu ci écrasé wul tey bu ëllëgee mu écrasé la loolu moo ko neex te daf koy def waaw looloo tax nag kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw looloo tax kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw keneen ko làqu ci gannaawam mu boole la ak moom écrasé leen dara nga ci mënul